Gueye wala man maay Abdourahmane Gueye maay président comme ni ko les techniciens waxee mbir mi noonu la tëddee on s'est réveillé un bon jour ñëw rek nii dañuy fay facture de courant yi te euh, dañuy rappeler ni depuis l'existence des postes de santé kenn mësu fay courant yenn post yi ñu ngi daté année 2000 yenn yi ba 2003 donc soo xëyee benn suba ñu indil la courant boo xam ne c'est un coût de 3 millions ñenn ñi 2 millions et ñenn ñi 800000 kooku aussi kenn mënu ko fay ci loolu Thiès gépp nag lañ ko def def nañ ko est def ko ouest tey jii dugg nañu zone nord. poste yëpp la moitié des postes coupé nañ ko. donc moo tax techniciens yëpp daje fi tey indi nañ seen i vaccin ci district bi parce que mënatuñ ko garder ci poste yi poste de santé Thiès yi depuis démb fonctionné tul kon donc loolu mbir la état nag su fekkee dafa désengagé wu ci courant bi ministre bi wax na ko ñëpp déglu ko directeur Senelec jot na lettre bi mais au niveau fii ci sante de santé bi ci district bi docteur jotul lettre bi donc kon lettre bi mu ngi yem ci entre la Senelec ak l'état mais su état désengagé wu dañoo bëggoon su yenn ko mu am ku mu ko yenn ci acte trois da nga koy lire nee naan collectivité locale ñoo war a fay courant comme collectivité locale ñoo ko war a fay moo nekk ci acte 3 bi te fi ne acte 3 la ñuy dund kon mënuñu comprendre ñu ne askan wiy dund ci biir yéen fayal leen seen bopp courant parce que askan bi attanul courant sëy mi laata ñu koo fay ku ne xam ne techniciens yi daj nañ ci lu ne comité yi daj nañ ci lu ne pour mën a dund dem nañ ba poste yi amatul garab médicament rupture donte amoon na ci district bu tuuti mais mënuñu ko jënd parce que poste yi xam ne leen am ci sëy mi bi ñu fayee say mi leen commencé at di suqaliku mais ñu ni courant ak ndox moo sonal post santé yi te poste santé mënul fay courant ak ndox d'ailleurs yenn poste santé yi du nu am ndox ni bi ñu toll kawe na de de ce fait que dañuy ubbi robinet yi loolu képp doo am ndox ba bala nga am ndox 2 heures du matin loolu munu kenn mënu ci fonctionner te suñu sañoon techniciens yi ni am ak ñi nekk ñëpp nekk ci biir santé dañuy dund loo xam suñu xëyee mën a jàppale askan wi mais poste santé bu amul ndox kenn du jël risque dafa kenn mënul nekk. maternité yi donc kon génne nañu malade yi newoon ci biir maternité ñu ñibbi seen kër poste santé bi aussi libéré na ñin fi ñin fi téyewoon ko si néew di leen def observation libéré nañ leen kon donc Thiès loolu lay dund à ce moment ci courant bi yenn ko ko yenn duñ loolu moom ñu xam ni loolu la yàlla dogal instant bi moom loolu moonuñ ci daal waaw loolu xam naa après dinaa bàyyi sax techniciens yi nga xam ñoom ñoo koy dund donte ñun liñ ciy subir moo di suñ leen fayul dañuy xëy xëy ñu ni ñu kat suba président duñu liggéey parce que nangam ak nangam xew na mais xëy na ñoom su ma joxaatee le technicien ñoom dina xaw dina mën a leeral seen indemnité yi nga xam ne ñu leen ko ci man anam la ñëwee ak ci lan leen ko war a parce que loolu ay texte la. wax na li solo mais si bëgg a yokk rek par rapport ak indemnité parce que un travailleur mënul nekk dans mënul nekk si stress permanent stress permanent mooy li ngay liggéey di li ngay liggéey. 24 sur 24 ko wax parce ñu nekk poste santé dañuy liggéey 24 santé santé également c'est la fu nekk nekk boobu par rapport au tra li mu war a jot ak sam li mu war a jot je pense que li gën a yanu maanaa mooy waxtu jotee nga jox ko ko boo ko joxee dina wàññi stress bi mu amoon parce que liggéey bi dañ koy def ngir yàlla en fait mais ngir yàlla bi aussi dafa war a fekk si ah li ñu la war a jox ñu ndàmpaay ñu jox la ko loolu moo amul fii centre district santé de Thiès mooy heure supplémentaire dañ ko dul jot jamais à temps bu ñu ko jotee dañ koy tënk dagg-dagg yoo xam ni yàlla rek xam lan moo si des te nit mënul fanaan di garde di fanaan ay 24 heures ci centre de santé di liggéey si poste de santé bi 24 sur 24 li nga ko war a jox ndàmpaay boo ko joxul je pense que yow yaa créé stress si moom yaa créé aussi mu bañ a motiver bu fekkee am arrivé na je pense que loolu moo euh, euh, motivation étatique yi nag ñetti weer yu nekk lañu ko doon jox jot day arrivé muy dem ñetti weer ñeenti weer juróomi weer ba à la fin da nga si génn saxel sax ñu soog ñu soog la oo jox la ko je pense que loolu si nekkul loo xam ni tax na travailleur di sawar tax na travailleur di am motivation suffisante pour mën a def liggéeyam comme ni mu ko bëggoon bien que bien que xaalis bi terewul ñu def suñu liggéey mais euh, dina tax ñu sawarkaay parce que